إلى ذراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وردي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ وقدسه لنا بأسألنا ضرورة تأتي بنظرة تأتي لنا بسفر bokki jullit yi bokki yi topp West Coast fii ci kóotu seen jataay firi alquran ci lakki olof yéen ci ànd ak seen mbokk ci yàlla Baye Mokhtar Touré Mouhamadul Amin Thiam moo ñu nekkal ci wàllu machine bi ñingi leen di nuyu di leen ñaanal mucc yërmande barke ndimbalal borom bi chahiran wa baatinan ngeen jox ñu noppi yi te boole ci xol yee xel yi ñun ñëpp ñu am éene fas ne téeréeb yàlla bi waxi yàlla la ñuy firi su ko defee yàlla yërëm ñu jox ñu ci barkeeb alquran ñi ngi woon ci israil saaru rañaan ñi ngi toll woon ci aaya sixty juróom benn fukk ak juróom ñeent bi yëkkati jataay bi démb borom baa ngi doon wax tawhid wéetal yàlla bañ koo booleeg dara doon wax tukkikat yi ak businessman yi ne leen bu ngeen nekkee ci biir géej gi walla ngeen nekk ci kaw jéeri ji jamono bu ne leen bàyyi xel yàlla ci li ngeen di def ndax léeg-léeg nga foog ne mucc nga wala laqtu nga fekk yalla kenn manta mucc ci mom kenn manta manu ko laqtu ndax fay laq fay laq moo tax yàlla waxoon ñi dembu ne su ngeen nekké ci kaw geej gi ci biir ndox mi wala ci jéeri ji fu ngeen mëna na ngeen di bàyyi xel yàlla ndax bu ko neexee mu fekk leen fa ak benn rek moo xam ngalaw lay doon wala sedd lay doon walla ndox mu yëngatu lay doon yéen ñëpp ngeen alku su neexee yàlla lu ko yomb la kon nag mangoo yàlla dina ku ko xam rek ragal ko ni mel ni mën a weccee koo nu ko neex lay mel lu ko neex lay def faalun li ma yurid maa tey noonu lay defee maa tey laa yusalu ama yafal kenn du wax lu tax nga def lii kooku koo xam ragal ko nu ko neex lay mel ku ko ñemee rek dañ ko réeree waaye ku ko xam ragal ko tey suñ aaya ñu ngi koy dooree ci walaqad karam walaqad karam naa bani aadama mooy tiraanga ju réy ji yàlla defal nit tiraanga ju rëy yàlla defal nit mooy defal na doomu aadama lu kenn mënta konte wa in taudu nicmatallahi la tuhsuha borom bi nee na xiwal yi ma leen defal dee bu ngeen ko doon konte sax du mën a daj mën leen koo konte tey nag dana ci am lum ci lim di wax ne doomu aadama daal defal naa ko tiraanga warna xamé xàmmee ne defal na ko tiranga ndax mu sant borom bi sama borom ne wala qad karram tiranga al ni ñun yalla bani adam doomu adam. defal nañ ko tiranga ju rëy defal nañ ko tiranga ju rëy wa amalnahum danañ ko teg moom doomu aadama fil barri ci jéeri ji ci kaw gëlëm yeeg fas yeeg moto yeeg pileen yi bicycle yeeg rayda yi wal ak géej gi gaal yeeg bato yeeg féeri yi warasaqnaahum warasagal nañ ko mine tayibaatin ci ay lekk yu neex ak ci colaay yu rafet ci dëkkuwaay yu rafet wa faddalnaahum gënal nañ leen ñoom nit ala kasirin ci lu bari mimman xalaqnaa ci mbooleem bindeef yi lu yàlla bind nit a ko gënal tafdiilan ak ak gënale lii mooy tiraanga jum wax ne defal na ko doomu aadama boomu aadama waroon na koo bàyyi xel nit la yàlla def ci tiraangam mu am xel mbindeefi yàlla yi nit rekk ci am xel di xalaat di am bànneex di lekk di naan di sëy di nelaw ba pare mana jamu jaamu yàlla ba gën a foor yi mom la yalla tirangalé lool tiranga ji yalla defal nit xel ci gëna am do am solo xel ba té ba paré bind ko def ko muy wax wax ju leer nañ di dégg-dégg bu leer ar-rahman allama qalaqa al insaanu allamahu al-bayan bu mu leer nañ bo mu xam lo wax yàlla teral na ko moom nit moo moom lu dul nit waaw moo moom lu dul nit moo moom bàyyi may bokk na ci teraangaam su ko neexee mu jël fas wi war ko jël gëléem gi teg ci bagage yu diis du sañ a bañ te gëléem a ko ëpp doole yàlla ko tàggat jël xar mi eew yefal ba mu suur mu rey lekk moom njabootam jël ganaar gi rey jàpp cokkeer li ci àll bi rey jël weñ gu ñuul liggéey ci ay machine liggéey pileen yi ñuy naaw lépp moom moom jël ngelaw li def ko ci tànki moto bi yéeg ci di daw def ko ci air condition bi mu lay seddal jël safara si def ko courant di ci togg jël suuf si di ci bay asamaan si di taw malaayka yi di leen liggéeyal doomu aadama foor su xamoon mooy kan du caaxaanee boppam su xamoon lan la fi hut ak lan la fee dem ak kan la fi uutu du caaxaanee boppam waaye réer rek sa loo man jëxoo la réer rek yàlla dafa bind li ñu tuddee nooraani te mooy ruhaani jëmm yoo xam ne duñ lekk duñ naan duñ nelaw amuñ bànneex mooy malaayika yi jaamu yàlla rek mu bind yeneen jëmm yoo xam ne ci sulmaan yi la leen bind lekk naan sëy nelaw hmm? duñ jaamu yàlla muy bàyyi may animal yi mu bind doomu aadama mu taxaw ci diggante bi am ñaari tànk su ko neexee mu topp imaanam gëm yàlla di tudd yàlla di jaamu yàlla leeroog malaayika yi te du ko yàqal lekk bànneexu ca lekk nga bànneexu ca naan nga bànneexu ca sëy ba bànneexu ca lal bu nooy ba moom moom ba mu ig ci pay yi su boobaa mbindaan malaayika yi mbindaanam la ñuy doon moo leen gën gis nga yonti yàlla Muhammad jibrilu xaadimahu wala xaqu najjaa jibril mbindaanam la te bunt boobu tëjut nit ki mën naa boole lekk ak naan ak sëy yépp waaye tudd yàlla ak jaamu yàlla xaatir yàlla tudd yàlla di ko ut ba mujj jeex ba mujj gën malaayika yi léeg-léeg nag mu topp lekk ak naan ak sëy ut xalal faale ut yàlla faale ut alquran faale ut ñooñ yàlla ba mujj bàyyi may tane ko in humu kal anhaam balhum addal doomu aadama bu ñu ko leeral ak animal yi rek animal yee ko tane ndax moom amoon na xel kon gis nga ñaari tànk yi mu taxawee moo tax mu nekk ku tedd bu ko neexee gën a baax malaayka yi su ko neexee mu gën a suufe bàyyi may yàlla bind na ko fii ahsani taqwi ci melokaan bu rafet yàlla waxoon na ko ne ko maa xarraka bi rabbikal karim من يقام ودف بساكن يصبر الذي خلقك فسواك فعدلك في اي سوره ما سأركبك تان لا دفل لام بيديف مي غن رافيت خامل لا دال بقول لا يو ياي كان سا جيم جي لان لا نيرو لان لا سا جيم جي نيرو سا جيم جي كوم لا يالا دفل لن لا واخ لو خيل ولقد كرمنا بني ادم دوم ادم دال دي غني ادونا balaa moo ñëw ñu ngi ko enu ca biiru jigéen jox ko fa kaaraange gu doy mu judd ñu koy leexu da ko téye ca loxo ya di ko enu di ko boot ca gannaaw ya mu mën a dox ñi koy teg ci bicycle yi ci rayda yi ci moto yi ci pileen yi ñi dem ba ñu ne doomu aadama mën a tuddee na ñi jël ko yëkkati ko ci kanam nit ñi moom daal war rek doomu aadama war rek moom ya. mom ba ci buntu bammel ya ñi delli yekati dugal ndank teural ndank kal ko ndank fofa lay falo, ba faaw wala mu folleeku ba faaw mom war rek way waron na tax li tax waron na xam li tax muy war de mom doomu adam waron na tax xam waron na xam lu tax muy war di war rek di war rek kenn du la war war nga delo njukkal sa borom Hmm? soo xamul yàlla jaamooloo yàlla boo reyee xar mi lekk ko danga ko ëpp doole rek ndax xar mi am na roxo am na yëg na méttit waaye nga jël paaka teg ci puut gi dugal ci diwlin gi lekk boo gestoo rek waroon nga wax alhamdulilahi rabbil alamin te nga xam lu miin nag wala xad karram naa te aadama nga joo xam ne buñ ko doon konte du jeex lekk gu neex colaay bu rafet melokaan wu neex wu rafet diw sa yaram wi mel ni nga bëgg mel xet gu neex waaw dëkk ci néeg yu baax bu naaj bi tàngee nga dem ci ker gi bu ker bu ker gi bu sedd bi bëree nga dem ca naaj wa bu ndox mi seddee nga tàngal ko bu tàngee nga seddal ko subhaanallah wa rasaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdiila teraanga ji bëri na yan nañu ko yàlla xamloo yan nañu ko yàlla santloo yow doomu aadama fàttalekul yow ma naddoxo bi naddoxo bis ba danañu woo ku la unaasin bépp nit bi imaamihim ci seen téere ba bi imaamihim ci seen yónnentu ba bi imaamihim ci seen njiit la bisa ngee ñëw yàlla ne dinaa leen oo mbooloo mu nekk wala xeet wu nekk ci seen turi yónnentu laa leen di ooyee ana xeetu yónent yàlla muhammadu sallallahu alayhi wa ala alihi yi ñëw taxaw ana xeetu yónent yàlla ibrahima ana xeetu nuuhan ok yawma nad'u kullu unaasin bi imaamihim mhm. ibnu abbas mu ne bi imaamihim ci seen téere ya kenn ku ne dañ lay oo ci sa turu téere rek nga jël sa téere ba jàng maanaam imaam googu ibnu Abbas moom dafa wax ne téere la ci namm ndax am imaam de dana firi téere ci ci alquran de boo demee ci suratu yaasin wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubin lépp lu ngeen def ñu ngi ko bind ci téere bu leer nañ imaam googu téere lay firi ibnu Abbas ne kon nag yow ma naduma kullu unaasin bi imaam yi ci seen téere ndax benn la de benn ñu ooyee la ci sa turu téere nga jël sa téere jàng wala ñu oo leen ci turu seeni yónnent wala njiit yi leen jiite woon te yàlla tax mm-hmm. lu tax parce que bu yàlla ooyee kenn ku nekk ci askanam su boobaa mën nañoo oo nit jox ko turu baayam fekk juddu doon ci yoon te ku baax la woon mu am gàcc xamu doon baayam mu am gàcc demet kon yàlla dafay génne askan sànni ca àll ba fa iza nufiqa fi suuri fala ansaaba baynahum yawma itin wala yatasaaluun yàlla mu ne bu ñu walee bufte bi askan amatu moo tax foofa duñ fa oo mukk sant bul fa yaakaar mukk sant bul fa yaakaar mukk diwa doon sama baay waaw sa jëf ju baax rek mooy sa téere rek wala yónnent boo toppoon wala kilifa boo toppoon te yàlla tax kooku rek ngay àndat lu dul loolu askan wa dafay dox jar na bàyyi xel de moo ñun ñi ndamo fi leg leg léeg lu ñak solo ñu koy yundi yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi ona fatimatu bint rasul domam la neko sama alal ji lo ci bëgg ñaanal ma may la len rek la lay bu li yaccaral defo dara bu ci kanam yalla nga nan man eh, muhammad ay sama bay lol lol du la fa jëriñ dara def doxal nga ligg nga jëfali sa bopp sallallahu alayhi wa ala alihi hmm? yawma ma na bis ba def na kula ku la nit bi imamihim fi turi seeni ngit wa faman ootiye ku joxef nako ko kerak wa terem bi yeminihi ci ndey joram fa ulaika ñooña ña jël seen téere ca ndeyjoor mooy ñi jaar raayit yaqra'uuna danañu jàng kitaabahum seen téere ya wala yuslamuuna deefu tooñ leen fatiilan lu tolloog fatiil buum gu sew gu tuuti gu ñàkk solo ga nekk ci xuntu tàndarma bi kokk bi saal bi mooy fatiil waxoon naa la ko fi ne buñ la waxee naqiir mooy saal bi ci boppam ndëpp li mooy koba buñ la waxee xitmiir saal bi ci boppam saalu tàndarma mooy mbuus gu weex gi ko xëmb li lu tax yàlla da ci misaal parce que ñun wuñ ko génne sànni rek pour wan la ne amul solo hmm? borom bi tabaraka wa taala nee na ñépp ñi jël seen téere ci ndeyjoor mooy ñi jaar raayit bi yoonu raayit ñi nekk ci siraatal mustaqima danañ jàng seen téere yi fekk ca lu leen kontaan loo wala yuslamuuna fatiilan duñ leen wàññil dara dara dara ci seen jëf yu baax dañ leen koy dabulal kay ndax benn ñi fay la ko fukk léeg-léeg benn bi da nga am yéene bu rafet sellal ko ñi fay la ko juróom ñaar euh, juróom-ñaar téeméer seven hundred léeg-léeg danga nga ko branché ci pays yàlla bi nga xam ne bi nga koy jëf sax da ko delloo yàlla gisoo ci dara lu luy xëduna wala mbindeef nga delloo lépp ci yàlla ñi balaa la ko ci lu kenn mënta calcul innama yuwafa saabirun ajruhum bi xayri hisaab kon kay wala yuslamuuna fattilan yàlla ne du ma tooñ kay man kay damaa yokk waaye du ma leen wàññil loolu mooy ñan ñi jaar raayit yal nañu ci yàlla dimbale ñi jaar raayit bi raayit bi trafic light bi nga jël raayit bi ma jël raayit ñi bañ a tàmpongante am na solo de am na solo de wax naa fii ci benn waxtaan ne police bi joxe trafic light bi jox ma sama ride jox la sa ride ñi mën rombante ku ne egg fi nga jëm lu am solo la trafic light police trafic light bu mag bi moy yonti yalla muhammad wala moy alquran tampo ngante yi de jàmm la boko leralé leeralee ngante nit ñi waaw tampo ngante oto yi jàmm la boko leralé nit ñi accident ci bir nit ñi baaxut bari lay jaar tarafillaahi nag moo ñu ciy musal mooy siraatal mustaqima bi ñuy ñaan ci julli yi rek ihdina siraatal mustaqima yal na ñu ci yàlla dimbale fa man utiya kitaabahu bi yaminihi fa ulaayika yaquruuna alkitaabahu wala yuslamuuna fatiila yàlla ne yéen ñi jaar raayit da ngeen yegg jàng seen téere gis na jàmm rek a fa nekk waaye wa man kaana ku nekk na fi haasihi ci àdduna ahmaa di gumba bañ ne doo gis dëgg te dëgg mooy yàlla foowa moom fi laaxiti ci àllaaxira axamaa dafay gumba ku gumba àllaaxira xay dal la di wa addallu te dana mu réer sa biilaan yoonu dëgg du gindee ku mukk ku gumba ci àddina da gumba bu àllaaxira yàlla mu ne gumba ci àddina da ngay ci kanam yàlla loolu mooy lan ana gumba yi mokkal alquran nag ana gumba yi nekk imaam ana muqaddam yi ana gumba yu baax mën a jàngale yi hmm? ana yu baax xam naa ci kenn ku mag wala ñu bari sax waaye ma tudd ci kenn muy Mawlaaya Seex Baay Umar Fati Jàll hmm? seetal ñooñu ana gumba yooyu ndax dañoo dugg ci ko gumba fii da ngaa gumba wala déedéet fa innaha لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في سدور كن القرآن ويفري القرآن يا الله نين بوما وغي قمبي وهم بد خلي لا وح والله من سوما وغي قمبي وهم بد خلي لا وح قمب نيك بد في تقول نيك كذي كنام يا الله واي قمب تقول بمن لا قم يا الله قمب تقول بخام ودار رتشد قل جي كوكو لا وعنا بول لجي بوي ديك كده قمب رك دي تمس تمس رك di tampon di dem kon fexe xool baax na ci de xool bi nag du ñàkk docteur bu fekkee cataracte la ñi génne ko bu fekkee wanent la ñi faj ko bu fekkee ay laasa nekk ci bëdi ñi génne ko loolu moo war a uti sëriñ soo demee sëriñ bi mooy dimbalanteeg yow seet laas yee ci nekk ci bët bi wala ngaa fatt ba man laa xool wala cataracte la wala lu xew su ko defee mu jéem laa opéré génne tilim bi ak jafe-jafe bi nekk ci bëti xol yi ba nga mën a janoog dëgg muy pay yàlla bi bu tajiliyaat feeñee rek nga xàmmee ko soo defee loolu rek yow mucc nga soo gumba gumbaloo dof dof lu mel ni aboo jëhlin nangu walaa dégg dëgg nangu walaa xam dëgg soo lëggéey da ngaa gumba continuer rek di tumus tumusi rek man kaana fi haasihi ahma fa huwa fi axirati ahma wa adallu sabila ñi jeexal nag loolu dem dugg ci beneen aaya aaya bii ñuy dugg wàcc na ci